mooy. mooy benn fan benn appel laa wax ak ñoom ñu waaw man borom xam nga daa yaa ma koy doog a wax. Ah. man du ma waxaale ko waxaale maa ma jaaxal naa woo. wax ko maa ngi ko fan yëpp ñooy waxtaan. eh dégg nga Jandeer Jandeer Zé Baye Fall Jandeer Zé Baye Fall Jandeer Zé Baye Fall door na ko léegi Jandeer Zé Baye Fall Jandeer door na ko léegi ku mais booy bokk yi booy xool ñoom ñaar xaw na noo pante ñoom ñaar Jandeer Zé Baye Fall rëm na waaw lii de mooy noppi naa jandeer Zé Baye Fall doorante nañ daw jàpp Zé Baye Fall mbokk yi ci laf xëcc na ko ba koo taf jandeer Zé Baye jandeer door na Zé Baye Fall de Nder Jandeer Zé Baye Fall taxabal na ko jam jande se Baye Fall da koo bëgg lu mu koy def eh, jandeer lu def nii da ko da ko bëgg a Diandé FC Fall Diandé da koy eh, woo sit amul sit am na sit am na Diandé daan nga sa bopp daan nga Baye daanu na Thiendé daanu na non bi muy def bi muy def bi kele bi la door fes la door fes kon fes Thiendé daanu na est-ce que doo waxantu làmb yi daanu na bi muy def action ba la door fes ba Diender daanu na mura le otra leve Cheikh Bamb Cheikh Bamb Cheikh Bamb yàlla ko yàlla fay Cheikh Bamb kooku yàlla yàlla jël sama tiyaaba jox ko Cheikh Bamb di ko amee moom mu gën la toppee dara barki Seydina Mouhamed bi ma ma sama quatrième combat juum barki sëriñ naa woon fukk xale jàpp ma ma ñëw ñaax. ñu gis ne dafa jër lool ci bëre bi. dañ maa yab mais man xam nga ne man man jàmbaar laa man arbitre arbitre suuf la may taw sama moromu góor nu mu demee moo tax ma ñëw tey taxaw ba jël coup bu ko ma tooñ seen làmb la ba mu fi jógee dama leen amaloon bor ma yabee moom laa ñëw bëree. non naa ma dama liggéey. sama costume nu ma baax ma fa bi laa tax ma taj damay taj taj mu bu métti barki alxuraan di sant Amadia. moo xam lu mu bëgg yàlla na ko yàlla defal. barki Seydina xam ne ñii di bëre grand combat bi mënuñu ma. ñii di bëre grand combat bi mënuñu ma. barki alxuraan ñëw kër ga ñu def émission ñu yaay ñëw. barki Mouhamed yab bu ñu may indee la dañ maa yab kii mooy moo ma génnee si làmb barki Seydina xam dafa am lu ma yabee ba may ñëw barki alxuraan karim ma demee ko. billaahi di sant Cheikh Bamba bu baax ak Sadio Diko barki alxuraan. joxe jaajëf moom lañ mujjee jox victoire bi dafa defoon recours lii dama suur dama wóor lii dama koy dama koy yàgg sama foor la damay bëri billaahi fekk am na fekk na filmé yu ñu ko wane filmé fekk nañ ko filmé wallaahi damay dama dama recours dama koy gañe wallaahi mbër looy kaas. waaye dama ko daan at bi ne dama toog dama ko daan lii du yoon au moment ni ma koy entraîné sonn si combat dama entraîné bu os. ay mais su nekkul bi ngay tànn kele bi. Ah. fa nga tegee fes. wallaahi te ma fes sama tubaab mu ngi nii fekkee filmé leen war ngeen gis ngeen suuf amul benn suuf amul benn suuf. wallaahi xam nga li la yoon may. xam lu ma yoon may waaye ma lu ma si métti est-ce que nañ ko est-ce que filmé ko loolu moo métti. filmé nañ ko kay jeex na. am naa ndam wallaahi.